t'as problème ma wax leen li avocat yi nanguwul wax ñemewul wax la cette société là Gretneck Computer ma ne société bu ñu dissoudre bu existé tul mun na continuer topp bàyyi fii Sénégal business boo xam ne Amérique la ak Guinée Conakry lu ci yoonu Sénégal bëggoon loolu le monde entier fii c'est le siège de Six Corp Holding pour l'Afrique soo demee Guinée Conakry am naa fa usine am naa fa bureau on est dans NCA Banque Guinée soo demee eh, eh, Abidjan ñëpp xam nañ ne le port d' Abidjan maa ko financé maa monté dossier yi étude de faisabilité de A à Z boo nga demee ci Google vous verrez que j'ai reçu un award de du du du best deal of the year à Londres pour le port d' soo demee Burkina. les moulins d'Afrique du Burkina soo demee Guinée Conakry les les les les les moulins euh, les grands moulins de, de Guinée euh, l'hôtel Sheraton ak yeneen ak yeneen man maa ko maa ko dóor demal Gabon nga dem Mali nga dem yeneen dëkk yu dul jeex yoo xam ne nii yëpp sama tur nga fa nekkuma ci ay caaxaan man kenn xamuma ci ay caaxaan mais nag dinañ jël benn idée rek jóg. benn indigène ne ok pour élection yi moom bon peut-être Serigne boobu bon mun naa ko dégg mais Baye Ciss moom su ma ci jógul ak li mu def fii Kaolack waaye ne moom la su ma ci jógul mais par par par quelle benn par quelle voie defal sax lu récent dafa génneel lu récent mais loo xam ne bind nañ ko bindaat ko bind ko bindaat ko faalewuma leen ñu ñu yóbbu ko ci benn presse boo xam ne depuis un mois. moo fa nekk à la moom lañu affiché à la ma leen depuis un mois moo nekk à la une c'est ça c'est le droit à l'information ou c'est la volonté de nuire pour que nul n'en ñor ñu toog ba démb ñu dem ci yeneen presse élargir nag ne xaaral kii comme bële bind nañ ko nit ñi faale ju nañ dem ci yeneen daal di yokk seen loxo dem jël bi jël bële jël bële dem ut ñaari revue de presse nangam nangam. pour la même chose yow kay demal yoon exécuter la nga jël sa xaalis lu dëgg bon mais man maa jël choix ne dinaa ubbi ay société fii société yooyu que muy tey que muy suba dinañ dem devant les tribunaux fu nekk na parce que soit man maa leen di yóbbu maay yóbbu ay nit soit ay nit yóbbu ma mais loolu fii lañ ko fekk te dinañ uj ji samay avocat dinañ dem uy ji à chaque fois ñu convoqué ñu du dëgg parce que yaa nekk ci business yaa nekk ci commerce tu vas travailler avec des banque ñu lay lebal xaalis pour que sa commerce pour sa sa sa business gën a yokk ñëpp xam nañ ne ci corona lañ jóge ñëpp xam nañ ne les sociétés sont en difficulté mais loolu c'est dans le cadre commercial waaye ouais, société su fekkee yow da nga jël société bi nga tiitre bàyyi siis am na looy ut waxoo dëgg lépp bàyyi siis lañ bind bàyyi siis bàyyi siis bàyyi siis bàyyi siis donc y a une volonté de nuire qui est là que les gens doivent comprendre ñi ci bëri démb liggéeyuma toute la journée nii ñi omo waaye ñi dañoo bon ñii baaxuñu li ñuy def ñëpp xam nañ ne nangam nangam kii koy def fekk na deux jours ou trois jours avant mu nga am ay problème mu suuf Kaolack ba sa Kaolack yëpp attaqué ko ah yow da ngay wut pare-feu nga ne xaaral ma jël plus fort que mois pare-feu comme ça suñ ko bindee man ñu fàtte ma tuuti mais taxul mu génn ci parce que ñun dinañ ko attaqué fu ne parce que Kaolack dafa war a génn ci lim nekk yéen journalistes yi yéen a njëkk bind ne Kaolack dafa salte yéen ñëpp a njëkk bind ne Kaolack dara amu fa. pour une fois un Sénégalais un un noble citoyen jóg jël xaalisam fonds propre laa leen di wax fonds propre dem Kaolack investir fa ay milliards yi milliards pour développer Kaolack te kenn fekk ko ci amul kenn dans aucune région du Sénégal un privé sénégalais bu def li ma def amul man jaayuma suuf ñu ngay jaay suuf Kaolack sa soo buggee nag laqatu ci gannaaw mairie bi pour que la nga def la nga ak la nga la nga la nga jaay kenn du ko gis kenn du ko ngay rayante tey pour jël mairie tu te détrompe-toi et j'interpelle le président la République ne ko un analphabète mënul yor mairie Kaolack kon ne fasse de la politique politicienne pour teg fa koo xam ne nii turam mënu ko lire ñun la ñuy investir man na budget kaw la combien quatre cinq fois man mérité may tere nelaw ñu ngi ay bureau fu ne dans le monde c'est on est une multinationale mais kenn du ñu dégg fenn fi ma wax ne am nañu fi bureau yëpp kenn est-ce que nit mës nañu fa dégg ñu bind ñu Abidjan nit mës nañu fa bind dara mais fii Sénégal rek la parce que fii la politique est parce que les gens sont mauvais au lieu ñu accompagner la nga jóg qu'on ait des des hommes d'affaires forts non dañ lay galgal pour nga daanu parce que tout simplement politicien ba nekk Kaolack mënul dara tegul dara di jël marché état il vie du contribu de l'argent du contribuable parce que dañ koy jox ay marché mu koy jël du exécuter benn marché